loolee nag ñu ngi ko war a présenté askanu Sénégal ba su fukki fan ak ñeent euh, ci weeru octobre atum donc Ousin mën nañu wax ne enfin euh, le projet tant attendu et di sera disponible le 14. waaw comme ñoom le 7 la ñu annoncé woon. Hmm. mais xam naa nag euh, xëy na ak président Bassirou Diomaye Faye ci voyage yi mu nekk ak liggéey bi mu nekk jàpp naa loolu moo tax ñu pousse ko mais dégg nañ ci xibaar ni projet bi xëy na pare woon na. Euh, bu ba pare bu yàgg xëy na lañ doon jéem a euh, am pour euh, choisir date bu baax pour mën ko wan wala wax sénégalais yi expliquer parce que cérémonie quand même de présentation bi du nouveau référentiel des politiques publiques Bassirou Diomaye Faye dafay day day présent ci salle bi salle centre Abdou Diouf bi je pense que foofu la ñu koy defee Ousmane Sonko également day ñëw donc événement bu toll noonu donc boo xoolee à part bi muy def presse bi muy def bi muy bi prêter serment ak hmm. ak événement bi nga xamante ni mooy assise de la justice bi mu amee fële ci jën naa jàkk naa naa ni bi mooy deuxième mbir bi nga xamante ni wala rencontre bi nga xamante ni xëy na am na dayo bu toll nii donc te rencontre boobu noonu mine de rien war nga ko war nga ko préparer donc xam naa nag euh, ci à partir de jour boobu nag la Sénégalais di xam mais bon moment bi ñu choisir également hmm. euh, pour def ko euh, ndax politique def ci rax parce que nit ñi xam nañu ñi ngi jublu ci ay campagne xëy na bu ñu étaler projet bi euh, ba Sénégal bu nekk mën ci gis boppam Sénégal bu nekk en tout cas xam à peu près ñii fan lañ ñu jëmee xëy loolu dina tax dina am benn motivation euh, ci Sénégalais ñu mën a dem voter pour pour Pastef donc jàpp naa ne tout est amul lenn loo xamante ni dañu ko def par hasard mais aussi da nga lañ koy nangul aussi. parce que hmm. tamit euh, politique de la nation la te politique de la nation tamit moo politique. génn ci donc euh, bu la neexee nga euh, bon vu que voté guñu budget hmm. euh, te budget bi nga xamante ni ñoom moom la ñu war a doxalee voté guñ ko nekkul seen loxo donc jàpp naa ni fii ba avant ñuy voté budget bi war nañu war mën a wax Sénégalais yi kañ la donc date bi tay la wala du suba pour man ça importe peu l' essentiel mooy. Hmm. balaa ñuy voté budget yi au moins na Sénégalais yi xam à ñi fan la ñuy jëmee et que fi ñuy jëmee noonu fan la ñuy jëlee xaalis bi xaalis bi ñu ko jëlee fan fan et puis pàcc moom mooy nekk priorité. Hmm. ndax mine de rien aussi mbay mi. Euh, am na lu ci jafe-jafe euh, inondation yi am na ay jafe-jafe éducation bi bon euh, Moustapha Bamba Guirass mi ngi jëm nu mu mën mais teewul am na pàcc yu bëri yoo xamante ne Sénégal jamono bi am na ci ay jafe-jafe yenn solution lañ ci bëgg a indi. justement parce que euh, boo xoolee bokk na ci quatre parties yi nga xamante ne jël nañ ko bokk na si wàllum bonne gouvernance hmm. fexe ba li ñuy li ñuy doxalee réew mu nekk lu mucc ay mais aussi gis nañ njàng meeg njàngale mi bàyyi nañ ko xel ci quatre axes yi ak formation bi lu jëm aussi ci aménagement hmm. territorial yi maanaam fexe ba développer goxee hmm. gox-goxaan yi jaarale ko ci ay yoon ak yeneen mais lu jëm ci wàllum koom gi aussi bëgg nañ mu nekk benn koom boo xamante ne Euh, dafay compétitive ba pare dañ koy diversifier maanaam fu ne lay xoppar di mën a jóge dugg ci keesub état euh, bu ñu sukkandikoo foofu est-ce que jàpp nga ne moom mooy axe prioritaire yi ñu waroon a jiital. Euh, bon bon déle sànq def nañ def nañ benn ba ba ñeent rek pour man ñeent yëpp bu ci nekk am na am na solo. ndax hmm. am na foo am fu ñuy waxee aménagement et développement durable. te yooyu mooy yaa ngi koy tudd léegi mais beneen hmm. côté bi aussi mooy capital humain bi. ak ci li nga xamante ni moom mooy justice sociale bi ndax xam nga loolu aussi tamit nekk na point boo xamante ni malheureusement président Macky Sall xëy na lajj na ci côté boobu ndax euh, wàllu yoon moom mën nañ ko waxal lu nekk président Macky Sall ba mu des euh, que ni def na ci ay preuve bon en tout cas hmm. yu négatif la ñu mën a wax parce que gis nañ fi euh, autant de Macky Sall yu bëree bëri nga xamante ni sooxe na ko jaayante doole bi affectation yenn yenn yenn yenn procureur yi donc gis nañ ko fi en fait torture bi ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy baadoole du ñuy jotee ci justice bi et que euh, doole yi bu ñu yoon borom doole yi bu ñu tooñee baadoole yi du mujj fenn yooyu yëpp di ay détails yoo xam Sénégalais yi également bokk na ci leen sonal trop trop donc il est temps que ñu benn projet boo xam ne day am benn stabilité mais euh, dafay tax joyante mbir yu bari yi nga xamante ni Sénégalais yi na loolu indi na leen si ay ay jafe-jafe. Hmm. mais mine de liiree quatre points yëpp da xam ni point bu nekk am na njëriñ comme beneen bi ni ko. amee njëriñ mhm. poñ yu nekk am na njëriñ comme beneen bi nu mu amee njëriñ loole di jàngatub ousin bu ñu fa jógee dañuy ubbi beneen poñ mooy lu soxal invalidation wu candidature Ousmane Sonko moom mooy tête de liste proportionnelle euh, bu Pastef euh, ci liste nationale yi moom Ousmane Sonko nag daanaka euh, déposé na li nga xam te ne moom mooy mémoire bi mu nam tekk ngir indi tontu ci coalition Takku Wallu Sénégal mu dugaloon recours boobu lépp mbir nag ñu ngi ko saisiroon euh, juróom-ñaari fan ci octobre bi ñu weesu ñoom waa takk wàllu euh, saisiroon conseil constitutionnel jëm ci candidature Ousmane Sonko ñu jàpp ne nag am na yoo xamante ne daal war mën a tax euh, Ousmane Sonko nekk tête de lañ ca gën a sukkandiku nag moom mooy condamnation par contumace bi ñu teg ak tamit li nga xam moo di condamnation bi ñu teg ci kawam dox ci digganteem ak Mame Mbaye li ni mel nag tax. waa takk wàllu dugal recours leneen itam ci recours bokk na ci wàllum parité bu ñu jàpp ne waa Pastef respecté wuñ ko ak la nga xamante ne dippee nañ ko coalition Pastef ñeel ci parti boobu boobule li ni mel nag avocat wu Ousmane Sonko daal di nañ ci yéeyaa bi ñu jàpp ne coalition Pastef moom d' abord nekk loo xamante ne lu existe la et lu jëm ci motif ya nga xamante ne ñu ngi koy toppee waa Pastef euh, lu jëm ci élection yi ñu dëgmal bokk na ci li nga xamante ne moom mooy condamnation contumace bi ak lu jëm euh, ci diggante Mame Mbaye Niang ñoom daal jàpp nañ ne yi ni mel dëgërul ndax euh, laataa ñu si doon yegg euh, daal di woon nañu vidé lu jëm ci dossier contumace bi ak la ca juge waxoon waaye tamit lu jëm euh, ci amnistie bi nga xamante ne effacé na lañ doon toppee daane ko Ousmane Sonko ci digganteem ak Mame Mbaye Niang donc yooyee bokk na ci li nga xamante ne moom mooy recours yu ñu dugaloon ak mémoire de réponse ak argument yi nga xamante ne avocat wu Ousmane Sonko daal di nañ koy teg lu jëm ci parité bi ñuy wax nag ñu jàpp ne Hady Gueye boobe ñuy wax du góor waaye jigéen la kaaw Ousmane Sonko yi daal di xamle li ni mel euh, la ñuy toppee Ousmane Sonko ngir mu bañ a doon candidat nekkul loo xamante ne lu wér la buñ sukkandikoo ci ay avocat am yu dipp euh, yu bee ci ab foofu la ci taabalu conseil constitutionnel la Ousin mm-hmm. kon mu mel ni bu sukkandikoo ci avocat wu Sonko daanaka am na ay sens ngir mën a continuer nekk tête de bu Pastef. waaw waaw parce que euh, bu fekkee ñoom dañoo sukkandiku ci kaaw Adji Sarr bon loolu fëte woon na boor. bu mm. fekkee dañu sukkandiku ci li nga xamante ni moom mooy affaire euh, Mame Mbaye Niang ak Ousmane man jàpp naan loolu bokk na ci loi ñu amnistier parce que mine de rien aussi ñi ñu jàppoon ni euh, c'est personnel mais si euh, daan bi jàpp naa ni daanu pénal la en fait maanaam yoon moom moo décidé pour daan ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Ousmane Sonko de diffamation mais bon am na nag lu ci raxoon politique loolu moo tax ñu boole woon ko ci loi si bon jàpp naan ni xëy na kaawu Barthélémy Dias moo gën a moo gën a délicat ka kaw Ousmane Sonko kaw Ousmane Sonko jàpp naa ni parce que bon il a fallu que ñu jege élection yi wala ñu def tête de nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko rek coow loolu daal di jóg ndax boo fàttali Ousmane Sonko attaqué woon na fi wala sax daloon na ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy député benn bokk yaakaar yi donc euh, taxul woon sax benn moment ñu soulever li nga xamante ni moom mooy euh, ñàkk wala mën a bañ a dem moom fi nga xamante ni moom mooy ensemble euh, national wala mais a fallu que ñu tudd ci Ousmane Sonko jiite ko ci liste bi débat bi mën a ñëwaat mais bon pour man xëy na nit ñi dañuy débat ci côté boobu pour débat mais juridiquement jàpp naa ne Ousmane Sonko na quand même pour bokk ci euh, élection législative. lan lan nga jàpp ne moo nekk ci ginnaaw recours yi ba takk wàllu Sénégal jàpp ne euh, war nañu mën a dugal recours contre Ousmane Sonko ragal Ousmane Sonko la wala euh, danga jàpp ne dañu user ci li leen droit may ñu jàpp ne ku ñu condamné daanaka waroo mën a bokk ci élection.